se sëriñ Cheikh Abdou Ba Gaynde Fatma nee te di ko ziyaar nee bi ñu yegsee itam nee sunu xarit nee sunu doomu ndey nee ma dikke ñaa nee fekk nañu fi nee moom mi ñu ngi koy nuyu nee di nuyu nee mbooleem kilifa yi nga xam fekk na fi ñoom ñépp nee tey nag ne président Ablaye wadd ne moo nu fi yabal ne ñu ñëw fii teewal ko ne indil ko ab ziyaaram ne ci si Abdou mi ne ndax président Wade ne amul lu dul sëriñ Cheikh ne ndax tey ji ne suñu demee bay tudd PDS ne Serigne Cheikh la ne kon tey ji nee di doomi Serigne Cheikh Gaynde Fatma nee suñu fi waroon a ñëwee benn tànk nee ñaari tànk lañ fi ñëwee nee président Wade wax na ni nee mu ngi feddali kóllëreem ak Serigne Abdou nee mi ngi koy xool itam nee bët bi nga xam ne nee moom la doon xool Serigne Cheikh Gaynde Fatma nee doon ko xool yi soxna May. ne loolu tax bi bis bi amee. démb démb mu wooñu. ne démb mu euh, ñu nañu def une ne wax ni nañu def une forte délégation. àndandoo. ne àndandoo. ñëw ñëw. waaye suñu ñëwee nag. ñu indil ko nuyoo. ne ñoo ko nuyoo. ak ziar ak sa xarit ne sa xarit. sa taalibe Karim Wade ne ndax bii ci guddi. ne ndax nee mu insisté lool nee ngir ñu ñëw nee te bu ñu ñëw it nañu ni wàll délégation bu mag nee ndax bii bis dafay bis bu rëy nee kon sëriñ bi ñu ngi lay sant nee di la gërëm nee di la ziar nee jërëjëf. Euh, sëñ bi kàddu yi dana gàtt kàddu taalibe yu ñëw di ziar si la. soxna si nag yàlla moo nu booleeg moom ba nu nekkee étudiant murit maa ngi la koy wax léegi si sëñ Maxfuus ñu bokkandoo di fa demandoo yàlla def mu bëggal ma boppam ndab yi ma mujj yàkkal jotuma ko delloo si faf mu wàcc liggéey mu ñëw nag soxna baali matal sëkk loolu yàlla xam na ni soxna si ba mu fi jógee ba tey néew na ma toog bés boo xam ne jox ma ko addiya boole ak moom soxna may pour wane ni nu toll sama xol bala may ñaanal samay waajur bopp sax ñoom laa see jiitu wax man bala may ñaanal sama bopp bala may ñaanal sama waajur waa kër sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa laay ñaanal waajuram yi laay ñaanal njabootam di soog a ñaanal samay waajur di soog a ñaanal sama waajuru bopp ndax moo man si man lu sama waajur manul moo man si sama waajur lu ma manul sama waajur kon su ma jaaralee ñaanam dafay nangu ba mu yomb lool nan ko comprendre noonu la la gën sama waajur sëñ Tuubaa ak man li gën si man sëñ Tuubaa ak man moo tax bala may yëkkati sëñ Tuubaa lay jukki jublu kon tànk kóllëre yooyu Cheikh Abdou mi di sunu xarit di sunu doomu ndey di sunu sëriñ ñu fas yéene sunu digganteeg moom jëmale ko kanam <laughs> incha allah sëñ bi di ñaan nag nga ñaanal si bu baax a baax ndax fa yéene na jëmale suñu diggantee ma kanam tey bi nu gisul soxna baali cër bu daan ko boole ñaari cër dafa amoon suñu cëru bopp si moom ndax moom bëri na ay mbir yu bëri yu nu digaale mbir yoo xam ni sax concerné na PDS gi ma bokkoon jataay bi dana xat ma nettali waaye bëri na mbir yu bëri nu diggaale bëri na sama mbiru bopp yu nu digaale kooku amoon na cër si ñun waaye nag tey cër ba dafa yokk ndax tey dafay am cëru soxna Baali ak cëru boppam buñ koy jox ba mu mat sëkk. di leen sant si coono yi ak takku gi ngeen takku jàppale ko ci bis bi nee di lool nag nee mi nga xamee ni sunu kilifa sunu waajur fekke na jotaay bii ndax ñoom kat dañ fee daje rek. ne sëñ Cheikh moo jëkk a di ne président Abdoulaye Wade ak Karim mu ne xanaa fii de yéen fi ngeen di jubóo la te ëtt bii ne moom xam na ko Abdoulaye Wade yónnee tey bu fi yónnee tey ne am na loo ci def ne yaa fi dëkk indi fii président Abdoulaye Wade ne naka jëkk tam. cey yow. atul Serigne Touba. jàmbaar nga day muy kër goo xam ni ñëpp a ko bokk. waa kër Serigne Touba yi. ndax fii kër Serigne Touba la. nee moom day wax ni. nee ba may tëdd. ak toog bu may toog saal bi. laa am. li ci des. lu neex waay na def. nee du ma ñëpp sama gi ndax moom moom maa ngi ñëpp ci yëpp nekkoon sëñ Cheikh mi ngi lay sant bu baax kàddu rafet yi ak jotal gi nee di mboolem kilifay PDS yi nga àndal nag nee sëñ Assane Ba mënu ko ñàkk a tudd ak sëñ Assane Mbacké waxee dëgg sëñ Assane Mbacké honorable député ne moom itam séeram la ndax njaboot sëñ Cheikh la mi ngi leen set di leen gërëm di leen yóbbante rek ci président Wade ak Karim ak cantam si ñoom ndax amuñu lu muy bis kon nag bu demee nii kon bu demee nii ngeen def délégation bu doy nii ngeen def délégation bu doy nii dikk tey dikk tey man na fukki fan te mat fukki fan ñëwoon nga bokk ak ñun conférence yi ñëwoon nga bokk ak ñoom conférence ñu doon def loolu day tegtale ne léegi day tegtale ni bis bi yitteel na ko bis bi yitteel na ko soxna si ñor na ko soxna na ko njaboot soxna seet bàyyi ne njaboot nañ ko xel dellu tegu ca dellu tegu ca la mu seq ak Serigne Cheikh la mu seq ak Serigne Cheikh kay defaat ne kon ngeen santal ko maître Abdoulaye Wade bu baax bu baax ne ko ne ko ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko wér. ñu ngi koy ñaanal yàlla. mu ñot di aw fanam. mu ñot di aw fanam. mu ñot aw fanam. di ko ñaanal yàlla. di ko ñaanal may ko jàmm. mu may ko jàmm. ak boole ak njabootam. ak boole ak njabootam nekk benn nag. kon nag nekkoon nag. bëgg nañ lool. bëgg nañ lool. kii di maître nag. ne kii di maître nag ma dikkee nag. moom itam fi la dëkk ci kër gi. ne ma dikkee ñaan ci kër gi nga dëkk de. doomi soxna may. ne doomi soxna may bi soxna si nekkee nee bi soxna si nekkee bu soxna si musaan ñëw ndakaaru bu soxna si musaan ñëw ndakaaru guddi gu yàlla sakk guddi gu yàlla sakk day ànd ak soxnaam day ànd ak soxnaam yendu ay bóoli yendu ay bóoli bu ñëwee bu ñëwee mboolem taalibe ak dayre mboolem taalibe ak dayre yi mboolem li soxna si noonu lay def mboolem diir bi soxna si nekk bis boo xëyee noonu ngay def kon ne kon ma dikkee yàgg nga ci kër gi man maa ngi fàttaliku ne moom mi ngi fàttaliku bi ñuy gën a nekk ndaw bi ñuy gën a nekk ndaw ne nii nekk ay am dafe ne booba soxna si yow mu la leen boole loon moo nag sëñ Cheikh na yàlla yàlla yokk leeram bépp bépp dossier bu ñu mës a am bépp bu ñu mës a am ku ñu mës a ñàkk jubóol ku ñu mës a ñàkk jubóol ciy wax ne yow la leen di boole ngeen am ne kon loolu yàgg na ne loolee nga seq xool sëñ Mourou Mahfous Cheikh Kour Soxna Bari ne teraanga ji nga fi indi yóbbu ko ne mën naa ne màggal gi yëpp xaj nañ ci kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla bu guddal sa fan may la wér defal la sa bëgg te may la jàmm nga xam ni daal fii daal moom kër Soxna may la di kër Sëriñ Tuubaa kon ngay taalibe Sëriñ Tuuba di ko tuddoo foo ne fu ne kon xam ne kenn ëppale wu la foo ci yem yaa fa yemal sa bopp ndax bépp cër bu la soxna si joxoon ndax bépp cër bu la soxna si joxoon nii nga def nii nga def boole cër jox na ko boole cër yi ne cër yooyu boole nañ yooyu delloo la ko kon xamal ni sa kër la di ñaan nag di ñaan nag loolu sañ na ko mooy yàlla jubalewaat mooy yàlla dañ ne loolu daal lay ñaan yàlla na nu yàlla jubale xam naa sax maanaam dëngu amul ne dëngoo sax amul xaj na politique rek moo demee noonu politique rek moo demee noonu waaye waaye réew mi waaye réew mi sëñ mi nga baal ma loolu rek kàddu gu ne nga baal ko rek kàddu gu mu ci bëgg a def la dafa dafa soxla dafa soxla ay parti politique ay parti politique yu dëgër yu dëgër loolu ndax loolu mooy taxawal démocratie mooy taxawal démocratie bi moo koy suuxat moo koy suuxat mooy tax ba mooy tax ba ak nooteel ak nooteel du mën a jóge ci benn côté du mën a jóge ci benn côté dem ci beneen dem ci beneen réew day dox ci équilibre réew day dox ci équilibre équilibre bi nag équilibre bi nag bu parti fragile bu parti fragile dafay dafay nasax nee dafay nasaxal moo tax moo tax bu ngeen mënta jubóo itam bu ngeen mënta jubóo itam kenn ku ne ci yéen kenn ku ne ci yéen yàlla ko yàlla jox lu dëgëral yàlla ko yàlla jox lu dëgëral dëgëral ba mën a taxaw réew mi ba mën a taxaw réew mi mën a taxaw askan mën a taxaw askan mi ba ñu mën a jëmale réew mi ba ñu mën a jëmale réew mi ci kanam lii daal mooy liggéey lii daal moom mu leen di yéene di bég loolu ci daje di bég loolu jubóo gi it nag mbàkke mën naa yaatu sax ba Macky Sall bokk ci na ñëpp jubóo rek <laughs> ah waaw waaw ah